Alioune Seye maa lay nuyu. waa Djily maa lay fay maa lay ziar waaw fii sa open press Trondoo loo yëg. waaw sant yàlla rek. waaw di ko ñaan yàlla defal ko tawféex tey si rek ba bis ba defal ko ndam wax dëgg yàlla kontaan ak mbégte rek laa am ndax ku la tuddee boppam amoo fay wax dëgg yàlla munoo lu xam bu ma xew la rek nga teewal ko bisam wax dëgg yàlla di ko ñaan yàlla yàlla defal ko ndam li sedd guy ci barke Seydina Mohamed waaw. sa diggante ak Alioune Seye Junior. waaw kooku mënu ma wax du ma du ma wax ne sa sama rakk la sama doom laay wax ndax amaana moom lu ma séq ak moom sax séquma ko sama rakk bi ma xam ne moom ñoo bokk ndey ak baay seen waa kër xam nga seen taaw seen yaay xam nga waa kër gi yëpp fi ñu ma teg sax teguñu fa Papa Dia kon damay wax ne benn famille rek ñoo bokk ndey ñoo bokk baay wax dëgg yàlla loolu moo ne suñu diggante su amee bisam xam nga dama dama dama damay am yéene bu mu ëpp yàlla xam ne fu nii maa ngi koy kalaame fu ne. barke alxuraanu karim di ko ñaan yàlla defal ko ndam rek ci barke Seydina Mohamed. daan Tapha Mbeur xam nga ban importance la am ci lamb. waaw fu mu moom daan rek lañ wax wax waxuñu leneen hmm. daan rek lañ wax ci kàttanu yàlla. mbër ñi nekk ci ginnaawam dañoo bari de. woo Tapha Mbeur ne ci ginnaawam bari nañoo gën a bëriwuñu mais ñun am nañ sañ-sañu gëm lu ñu gëm du ko jëfee ci kàttanu yàlla ndam rek lañ gëm ci incha allah te dinañ ko am ci kàttanu yàlla wax. waajal bis bu rëy sa diggante ak ñàkk jariñ. waaw maa ngi waajal maa ngi waajal maa ngi waajal di ànd ak sama waa écurie di ànd ak waa géej waay di ànd ak sama mbokk yëpp rek waaw le 9 février incha allah. le 9 février waaw le 9 février. loo naral ñàkk jariñ. waaw di ñaan yàlla may ñu tala fekk rek ba jour ba incha allah di ngeen xam li ma nar ci kàttanu yàlla. ndaanaan la de Alioune. non kilifa moo tax ma jël ko. ni mu nekk ndaanaan moo tax ma jël ko di ñaan yàlla tala fekkee rek ba jour ba incha yàlla may ma. ko bëgg a baab ba ba bis ba nga génnee sa jikkoy waalo waalo. question de baab làmb la làmb fii kenn mootul ndax kenn xamuñu ndax ñu xamante nañ moom su ma xamul woon du ma jël man su ma ko xamul woon du ma jël kon xam nga ñaan yàlla tala fekkee ba jour ba rek yàlla dafa ma ndam ci kawam ci barke Seydina Mohamed. ñàkk jaruñu bëre ak xeex lan la ci gën a mën. mën na lépp day bëri day xeex. looy moytu ci moom. amul may moytu ci moom nag su dee dëgg rek day dëgg amul may moytu moom wax dëgg yàlla lan laay moytu ci jariñ ñaan yàlla tala fekke ba jour ba rek yàlla dafa ñu ndam ci kàttanu yàlla amul may moytu yow da nga am da nga am loo moytu loo ci ñàkk ah dama lay laaj xam nga làmb te yow yaa ngi suivre làmb kon mooy loolu wax la nañ bàyyi noonu rek yàlla baax na yal yàlla dafa sutura dafa ñu tawfeex rek tey ko bépp boolem jullit dafa ko axlu làmb gi yëpp di ñaan yàlla tala fekke ba jour ba yàlla dafa mën làmb la wala yéex sa diggante ñàkk ja rek làmb moom kenn xamul mën nga ko ñëw natt mu gaaw mu yéex nga ñëw natt mu yéex mu gaaw ñuy sant yàlla rek di ñaan yàlla may ñun talak fekke ba suuba yàlla may man dam ci kàttan yàlla. jërëjëf waaw jërëjëf jili waaw kon tey nag ñu ngi fi nga xam ne ni mooy yëmbal ah liñ fi indi nag mooy Assane Ndiaye moo tëgg làmb dimanche le 29 décembre stade Iba Mar Diop Alioune Sèye junior la bu écrit waalo ak Tafa Mbër bu nekk Parcelles Assainies ah. bu Grand Médine di Moes waaye parcelle la defe naa ne tey nag gaa yaa ngi nii duma lim gis ngeen micro yi rek xam ngeen 100 pour cent làmb na naa ko wàcce Alioune ñu ngi la fekk te ci sa biir mbokk sa biir dëkk ak sa waa écurie ak say mbokk ñu ngi lay nuyu di la waaw Babacar maa lay maa lay fay bu baax a baax a baax. gannaaw ba ma sant yàlla julli ci yonante bi sant samay ñaari waajur mhm. di santaat sama sëriñ maam Malick Sy mu sëñ man soo yàlla fi yàgg te wér di santaat sama sëriñ sama xarit sëriñ Babacar si yàlla yàlla yokk ay leeram te taaf ñu ci barkeem waaw tey yaa ngi ma fekk fi nga xam ne fii fii laa ja fi lépp lu ma mën fi laa ko mënee mhm. ma nekk foofu nag samay grand frère mhm. ku ci mel ni ay Baara sama mag Amad Dia ñooñu laa fekkoon ñuy bëre fii fii laa jàngee lépp. dem ikiri waalaw mottali. mais gannaaw yàlla ak bi. Mhm. suñ mooy dégg Alioune Seye junior Alioune mhm. kii moo tax. Alioune Seye de lépp moom la. kii waaw. ay seeral eh, eh, xool bu feesee rongoñ day tuuru c'est normal. borom jooy yu ci komba man ak mbay guy di di dànd nit te mënu ko. dégg lu ne. mais moom moo ma daan jàppal te bàyyi. ak sama xarit sama doomu nday armée sama seex. armée bu benn baraak armée bu benn baraak. Hmm. hivernal yëpp ñoo ko bokk di ko hivernal moom ak waa mafia bi. Hmm. maa gërëm ñëpp daal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi may jàppale si si combat bi nii. bala ñoo gërëm ba bi dina dañ bàyyi ba si kanam. waaw mais si li ñu war a wax mooy hivernalu nga ba pare am nga combat te defe naa bi ngay mujj ba Mari Diop defet nga fa jëlee woon. ki nga ko seqal tamit bi mu fay mujjee defet la fa jëlee woon arène nationale ah muy Tapha Mbeur nga lekk avance am Alioune Seye loo wax ci loolu. waaw Tapha li may wax ci moom bëriwul li may wax ci moom bëriwul 17 combats laa bëree. waaw 17 combats laa bëree. waaw 12 victoires 5 défaites. ba bëri huit grand komba kon Tapha Mbeur bu ngoon sama yoon mais nag làmb moo boole nekkul dama ko raw wala kii làmb léegi amatul loolu dañoo war a bëre ñu ngi bëre nag mu nekk nag combat bu ma fonk waaw du man sax combat bi du man mais dafa am ñeneen ñoo xam dama leen koy bëreel mhm. waaw te ci lii laa nekkee mbër ci lii ci lii laa nekkee mbër ñëpp dem ma si ah. loolu laa nekkee mbër ok si si amee dégg. maa ngi lay dégg kay. ñëpp dañ ne woon du dem du fii ci koñ bii nii fii fii fii ñu nekk nii. waaw. nga fexe ba mu doon dëgg. am ñu may jàppale ñoo xam ne ñu ngi dëkk carte basse man carte basse laay tiitaroo man lépp lu ma mën waa carte basse la ba ma kenn gëmul ñoo ma gëm ba ma kenn gëmul ñoo ma gëmul ba ma kenn gëmul ñoom ñoo ma ñoom ñoom ñoo ma gëm yàlla di ma dimbali di ma dimbali di ma ba mu yegg si fii mais ngi laa war a suul yàqkat yi nañu bàyyi yàqkat yi nañu bàyyi fii sama koñ la fii laay waxee lépp mais nag yàlla baax na waaw lépp lépp lépp lu ma yéene doomu aadama rek yàlla ci jiitu ma mhm. mhm. a doon quoi. Mhm. moo ëpp ay la lan yaakaar ku ñu bind moo tax. dëgg la léegi ñu continuer si làmb ji nga jëm sa digganteeg Tafa mbër la ñu bëgg nga ñëw ci ñaari mbër yu jógee ci defet moom muy xale di dem yow yaakaar naa bu ñu waxee ci carrière yaa ko jiitu si làmb. ëpp ko ay combat. loolu est-ce que du dis ci yow pour dimanche. incha allah euh, Babacar damay dégg mbëri di wax lu damay dëgg mbëri di wax ñoo Alioune Junior moom ma dëgg la maa mag ci bëre mais maguma leen ci ayaat. Hmm. maguma leen ci ayaat dama c'est que dama njëkk a siiw ba dama leen njëkk a siiw man may ñëw arène matuma 60 kilos barki sëñ Babacar ci mais dama daan samay morom yëpp mbapat ñëpp ne ma bàyyil mbapat nga dem arène loolu moom may indi arène. mais li ñëpp def su su ma ko defoon ba tey kon. Hmm. mooy loolu dama man nekkuma ay kii rek dama man dama juddu ci bëre fekk samay grand frère ñuy bëre hmm. kon dafa am bër nekkul dëggul ma nee naa la lamb moo ñu boole le le vingt neuf décembre. incha allah te si kattanu yàlla Alioune Sèye Junior dina ñëwaat ak i façon yu bokk yu ñu doon ñëwee. waaw Thier. mais Alioune mhm. ngi si yoon. Mhm. bien vrai que dafa jóge ci defet mhm. ndax combat bi nekkul si yow parce que am na lu xaar te am na fu la gars yi seen biir lamb. waaw ndax li xaar mooy lii rek. ndam rek ndam dem la bàyyi la. waaw kon li may waaj ak li xaar man xam naa ko ndam rek moo a jikk te ci kàttanu yàlla ci barki sama sëriñ sëriñ Babacar Sy dina am ndam incha allahu rabi incha allahu rabi dina am ndam waaw. waaw Alioune Seye Junior li ma lay laaj. mooy nga jóge ci xale. muy mbéy gu gi. bëre woo daanu te am na lu ñu xam ci yow nga jëm ci xale boo xamante ne làmb da koo bàyyi xel comme ni la làmb bàyyi xel mu am benn defet est-ce que combat boobu du risque ci yow tax Tapha Mbeur nee na moo la dàq xeex te yow yaa ko mag te li nga dese ci làmb ji bëriwul da nga koy abal waaw waaw mais loolu noonu xam nga waxin la waxin dafa ànd ak déggin yaa may dégg wax naa li may wax nee naa la gars yi dama leen a dama leen a njëkk a bëre mais maguma leen yaa may dégg mais ci kàttanu yàlla laa la wax le 29 dina leer dina xool kan mooy dem abal benn défaite la am ak le 29 décembre muy deuxième défaite am benn question laa dese Alioune Seye Junior ba tey. Mhm. ñu gis ne sa combat ak Mbaye gi dafa am ku ma ko yóbbante sax question bi muy xës daale bu parcelle. Mhm. mu ne sa combat ak Mbaye gi Gui da nga concentré woon ci mystique di trop. Mhm. combat bi mu dégg sa interview nga ne gàllaaj gi danga koy tege fële. da ngay entraîné ba ose. ñëw daan ki nga xam ne mooy Tapha mu lay laaj ba xam gàllaaj gi da ngaa dem ba xam ne amatul solo ci làmb ji doole ji mooy priorité bi wala. làmb ak galaaj ñoo ànd yow yaa ngi ci làmb ji chaque jour yaa ngi gis lamb ak galaaj ñoo ànd mais dama ne la dafa mbër laa wax dafa mbër laa la wax su dee ay ñaan mooy mooy sama diggante moom ndax dama bëri ñu ko gën a oos dama bëri ñu ko gën a oos gën ko metti dégg nga ma kon moom moom du ma moom non moom mënu ma tere def li ma bëgg def ci kàttanu yàlla incha allah rabbi la ma daan def laay def la ma daan def laay def la ma daan def laay def la ma daan def laay def dégg nga ma. Hmm. is yaa may dégg bu baax. bu baax. waaw yàlla baax na. Alioune Seye Junior Galaye Talibé Bamba bu info réew mi. Hmm. tey bu ñu xoolee li la daloon ci mbay guy gi. Uh-huh. dafa feeñ fii tey sa taxawaay. Uh-huh. alin ku ne xam na sa xët-xët. Uh-huh. ak sa njàmbaar. loolu kenn dootu ko werante ndax moo la indil sa tur ci làmb. ki nga tuddee sa bopp wane na boppam waaye bi nga ñëwee jàppoo ci turam. topp directement mais dañoo gis carrément ci say wax tey nga xeeb Tapha Mbeur trop am loo jàpp ndax boo ko yóbbaalee dina gën ci yow dimanche. waaw sama combat li ko ko ñàkkloo mooy gëm sam bopp yaa may dégg man nee naa ah, man du ma reculer man yëmbal laa dëkk dégg nga ma te gars yi li ñuy def dàqu ñu ma ko barki sëñ Babacar si ndog-ndog ay ndog-ndog moo ñëw rek. mais mënul ñàkk mais man samay morom espoir man man man dama ci bokk te dimanche ci kàttanu yàlla ngeen di xam ne Alioune Seye Junior dafa bokk espoir yi incha allahu rabi. dinaa ñëwaat ak yeneen façon dinaa ñëwaat ak yeneen i façon. ñu ne ñu ne waa yëmbal am na ci ñu ci seetlu ne Alioune Seye bii paa dafa laseeral combat bi ndax da nga koy gis mu oyofal ko trop est-ce que tey ci open press bi jarul pour waa yëmbal loolu ñu doon wax te le 29 li des bareetul Alioune Seye doxee ko lu tàmbalee tey jëm la le 29 ndax xale ngay bëri. nee naa la combat bi nii soo bëggee dégg dëgg rek li ma la rek nee naa la waaj nañ ko ci entraînement waaj nañ ko ci physique nañ ko ci lépp. yaa may dégg moo tax combat bi cell wax la am na ñu bëri ñoo xam ne dama naan dem si ñoom di leen wax pour ñu jàppale ma sama combat mais du ñàkk du maa ngi leen sant ñoom ñoom ñëpp mais daw ma fa man borom ngor laa yaa ma dégg ay doomu aadama bu lay bu lay jàppale bu lay jàppale si seen doole yaakaar ci yow ndam lañu yaakaar ci yow yaa may dégg sama combat mbay guugi bëri naa lu ma warul bëree kon daw ma fa mais nag du ñàkk bañ mais maanaam le 29 rek laa leen mën a faye te si kattanu yàlla waaj nañ li ñu war a waaj bu ñëwee le 29 décembre di nga xam ne Alioune Seye Junior ñëwaat nag yeneen i façon barke sëñ Babacar Si Alioune Seye ñoo ngi lay nuyu am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yow euh, dañu gis ci sa combat yu bari maye chance jiguloo bi yoon ngay maye chance dafa am mbër est-ce que xam nga maye chance mbër lu mu lay jël lu mu lay jur waaw mais du maye chance du may essence dégg lu may wax nee naa leen dama leen njëkk a bëree. dégg. la dëgër ba muy ba muy dugg ci làmb boo ñaa ñëw ñëwul ci làmb. bëgg dama njaa leen bëree. dégg léegi làmb ji moo tollatul fi ka gars du toll. yéen xam nga li ma la wax baax promoteur bi mooy bëgg seen combat. ne leen ne leen nii nangam nangam yaa may dégg sama combat ak Tapha Mbeur Marley ak Boy Baol laa waroon bëree maa waroon eh, eh, eh, bëree avant grand combat bi. yaa dégg bëréew ma ne bëréew ak moom saison tëj ñu waxaat ma ko ma xam ne kon promoteur kon gis na lii mooy sama dégg nga ma mu waxtaan ak samay mbokk jël jël combat bi yaa may dégg te nag teg ko fu wóor nag teg ko fu wóor waaw may du maye saas dama nee ko nee naa da njëkk a siiw dama njëkk a siiw loolu rek la dama li ma njëkk a siiw. mais wolof daf ne foo dem fekk fa mbaax. loo am ci mbaax foofu nga koy yóbbu. Mm-hmm. tey nga ñëw fii am message boo xam ne da nga ko lancé. ci mm-hmm. géejawaay gépp mm-hmm. ñëpp dégg. yëmbal gépp di dégg. Euh, nga gis ñu gis waa mbëru géejawaay waaye tey lan la loo xamante ni dafa nekk sa xol dafa mel ni jàppale bi daf da ko manqué lu bari bari. Euh, boo déggee loolu maanaam 50 cent. remarque. B52 mm. Alioune Seye 2 50 cent. Pape Thiam 2. gars yi ñii dañoo bokk 100 pour cent géejawaay man dëkkuma géejawaay mais sama lépp géejawaay la 100 pour cent ma bokk ci 100 pour cent jox ma ci sama yëg loolu. dégg nga ma li wax man Cheikh Wade laa juddoo kon du hasard dégg nga ñii doona ba gurwaat ñu nekk saw suñuy grand yoo xam ne ñu ngi ñuy ñu ñuy conseil di di jug di jug fajar di ànd ak ñun di dem di dem di dem entraînement dégg nga ma man yëmbal laa dëkk ku ne xam ne yëmbal laa dëkk te tamit maa ngi seq samay samay xarit yu yë yi dëkk mbër yëmbal yi ay garga ay ñoom booy yëmbal Baye Ndiaga Aba Stalum bu ah, ah, Pape Robo ñun ñëpp ñoo bokk ñun tam ñu bokk benn groupe WhatsApp euh, mbër général ak général armée ñun ñëpp ñoo bokk benn groupe WhatsApp ñu nekk ay ay doomu nday yaa ma dégg ñaawul du ñaaw man géejewaay la ma yàlla séddee man ma nekk fa kon kon ñoom nan ma jàppale xam ne géejewaay la ma yàlla séddee. Mm. dégg nee la. fii ak maa ngi bëree mu di gis ci sama wet sama ngor may ma ma jóg a écrir waalo mais yëmbal laa dëkk lu ma am fii laa ko indi dégg nga ma ñi sama garaan la yoon la ñu ñëw te combat bi dañ ma si jàppale ba ma xam ne jàppale na ma ci billaay wallaay. mais Alioune Seye waaw. waaw waaw waral gis ni combat bi dañ laa jox favori ndax favori bi euh, mooy a bëri dégg euh, ko mais làmb hmm. ce que tey comme que Tapha Mbeur gars yëpp ne bi day gaaw wala day yéex wala ñaata minute nga ko may. waaw ma la wax nee naa la man mayuma kenn sens déggal man duma favori kenn. man moom ñooy yem yëpp man du ma favori du ma kii doo du ma lenn ma dégg xëy na nag ñoom journaliste yi ñoom ñooy gis sama qualité gis qualité am di ma di ma jox favori dégg nga ma man du ma favori dégg nga ma no du ma favori. doo favori waaw non non du ma favori. waaw waaw nga ni. waaw. dina gaaw sa diggante ak mbay guy a. ci kattanu yàlla laa waxal. yàlla rek moo xam liy xew suba. mën naa gaaw mën naa yeew. yaa may dégg mais si sama rafet njot. loolu da ngay téye sa bopp wala quest ma la combat bi daal du gaaw. Ah. waaw dinaa dinaa ñëw yaa may dégg dinaa ñëw euh, bëree lin ma wax dinaa ko bëree mais ci kàttanu yàlla laa la wax. guddi guddi yëmbal. Hmm. incha allahu rabi léegi man xam nga fu may ñëw. Hmm. parce que laaj naa ko léegi sa turandoo. Hmm. Euh, diggante ak si géej waaye ak parcelle moom. ku ne xam na ne cin luy baax la daa yàgg di baax. moom nag gis nañu Modou Lo kera. def moom benn vidéo. di ko soutenir te gis nañ mu ñëw ci open press <laughs> yow la dëggee de sa tête de file mu mel kon diggante Modou ak Lac mooy amaat dimanche. boo boo nee Modou Lo moo ko indi man ay reetam ma jàpp Modou Lo. ngeen xamal Modou Lo bay reetaan. ngeen mën a turandoom indi ko ma daan ko. wan turandoom. Mod bébé Modou Lo. meen. waaw léegi mu ngem Tapha Mbeur. mu ñaanal Brise de mu fu mu dëkk. laaj naa la grand parcelle. Ah, Tapha Mbeur fu mu nekk. parcelle parcelle ba tey. lamb ji dafa jeex bu yàgg. Eh. kon yow Modou Lo maanaam fi mu ne bu ko indee dimanche itam daan ko. Modou yaakaar laa yaakaar man Serigne Babacar Sy la yaakaar man Serigne Babacar Sy laa yaakaar. waaye moom nag mbërëm la am dégg nga ma laaj fa muy tibbee fa laay tibbee donc bu ko ñaanalee bu ko ñaanalee bu ñaanalee bu demee su ma demee ñu tibb jox ma. waaw. léegi fi ñuy jeexale mooy parce que tamit. waaw fi mooy. promoteur moo leen dëgg te ku ne xam na ne lamb ji léegi amatul mhm. sponsor. waaw promoteur yi dañuy soxla mobilisation. Mhm. Alioune Seye Junior dimanche ban mobilisation la Assane Ndiaye ak waa Baol Production mën a xaar moom. xam nga Alioune Seye Junior moom boo xoolee ba fu mu yegg nee naa la koñ bi fii ñu taxaw ni fii laa defee lépp. su ma nekkul suñu ko fii laay maa ngi fii ci koñ bi fii. fii mooy suñu teree fii ngeen taxaw nii fii la ñuy footballé chaque dimanche. ok dégg nga ma. kon mobilisation buñ koy wax loolu mooy loolu. yaa ma dégg waa Firlaaf ñu ngi waaj waa Kartabas ñu ngi waaj. waa Géejawaay ñu ngi waaj. waa Teera Yëmbal ñu ngi waaj. di gërëm waa Yunkum danoo ñëwaat ñi nga xam ne depuis depuis ba ma bëree Mbapat. ñu ngi ci woon. waa Yunkum. Yunkum xanaa fan la xanaa néew ci Sénégal. waa Yunkum danoo ñëwaat yaa may dégg ñoom ñoom ñoom a jàppale bu ñoom ñoom ba kenn ba ba may door la ba fi dara newul ñoo fi new tey danoo ñëw xam nga ba ñëw lu ñu wax yëkkati seen xaalis bëri jox ma ne bu ñu fontoo da nga am cër ci làmb ji yaa may dégg kon combat bi nii waaw non du combat bu may ñàkk de kon wooteel léegi te te ñu tàggoo parce li may li may li may tàggoo mooy maa ngi gërëm Assane Ndiaye promoteur bi li ñu waxante woon def na ko. kon ñun mbëri ñun ñoo ci des. yaa ma dégg. di gërëmaat sama sama yaay tànn Sophie. Fall ki ñu may courant bi nii. moom moo ñu moom moo ñu yar ci koñ bi. te dafa tawat. maa ngi ñaan yàlla ñëpp ñu ñaanal ko. yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na ko yàlla yëkkati ak jàmm ak salaam. ndax suñu yaay ju baax la soxla nañ ko ba ci kanama ak kanam ak kanam ak kanam waaw di encouragé waat sama turandoo. waaw Dofu Dia seen kër a ngi nii. waaw Dofu fii mooy seen kër. waaw yaa may dégg. di ko encouragé waat. nee naa la ba muy nekk tout tànk maa ko wutal licence. waaw. yaa may dégg. xale la yéen xam ngeen ne xale la. bu baax ngeen encouragé waat ko rek mu ñëwaat te xam ni am na cër ci làmb ji. waaw te gars yi gars yi yaakaar nañ ko. waaw nag maa ngi sant nag. maa ngi sant Kéba Kanté. Kéba men Kéba Kanté daf may jàppale doomu seex kante ñu koy nuyu di suñu xarit. Modou Mbène. maa ngi koy gërëm moom it bu baax a baax a baax a baax a baax. yaa may dégg. di gërëm di gërëm euh, Moussa Guissé. maa ngi koy gërëm tamit bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di gërëm di gërëmaat ñëpp rek mu ñoom ma Diakhoumpa. ñëpp rek waaw di woo Omar Sow ministre Omar Sow maa ngi koy woo bu baax a baax ci combat bi nii. maa ngi ko ciy woo bu baax a baax a baax di ko wax mu jàpp si combat bi. am na solo Talla Diop sama grand moom it bàyyiwuma benn yoon. maa ngi koy gërëm tamit di ko di ko sant. El Hadj Dieng conseiller le maire maa ngi koy gërëm. sama coach Diallo Escaf. gërëm gërëm naa ko. dégg sama coach Rone ville. jàpp nañ ci bu baax a baax dégg lu may wax nee naa la li may tàggoo daal mooy le 29 décembre. incha allah sama fan si club jigéen ñi ñu ngi ñu ngi am na ku ci mën a waaw mama la. waaw waaw waaw léegi nag waaw moom moom ci la bokk. <laughs> waaw maa ngi woo ñëpp daal. di sant tamit Baye Ibra. Baye Ibra ak Omar Fall ak Modou Diop. Bada sama mag la kooku ñoo bokk nday ak baay jàpp na ci bu baax a baax Serif Si Ablaye Thiaw Mor Dieng. maa ngi gërëm ñëpp ñi nga xam ne na nañu ci combat bi. maa leen di gërëm bu baax a baax. waa di woo waa Yunkung. waa di woo di woo ñëpp daal même waa Tooba naataange. sama sunu sunu groupe nitu démb yi. maa ngi woo ñëpp waaw maa ngi woo ñëpp waaw waa facile famille ñëpp maa leen di woo ci combat bi waaw mbawar nga sama koñ fu ma dëkk jumaay laayeen yëmbal 1 ba 26 daal maa ngi gërëm ñëpp Sidi Pël sama xarit waaw yow yaay waaw loolu dafa leer